asalaamaaleykum mbokk yi kii di Mame Mbaye Niang moom nag daal nay def ay plainte yu bari daal koy jëmale ci ay youtubeur ak i tiktokeur ginnaaw ba ab xabaar daal di waddee ci fan yi rek doon wax ne moom Mame Mbaye Niang dafa tëddee rakku jabaram xale bu jigéen ba daal di cay jëlee loolu nag waral ñenn ci waa alo Sénégal daal jot seen pelante ba daal di wuy ku mel na Ndeye a suba nekk journaliste Moussa Diop nekk technicien Lamine Dieye journaliste Magnane Lo nekk PDG bu groupe alo Sénégal Daouda cameraman Pape Yalib nekk ab présentateur ñoom ñëpp daal daal di dem fële ca dikk ngir daal di wuy ji boobule plainte kii di Aïssatou Diop Fall nag daal di nay génn daal di wax ne nag moom bokk na ci ñi wax Mame Mbaye Niang pour mu dem plainte mu ne nag Mame Mbaye narul woon porter plainte mu ne waaye moom moo ko wax mu dem porter plainte ñooñu le